bismillah donc Jeanne Mendy ñu bàyyi la rek nga déroulé ci wàllum actualité voilà dañuy tàmbali toujours ak euh, point du jour tey nag def nañ lu toll ci 1917 tests alors 177 euh, ñoo ci daal di euh, dikk positif waaye tamit 5 nouveaux décès la ñu daal di noté tey ci lu tukkee ci li nga xam ne moo di Covid 19 ci noonu ne depuis le 2 mars ba fi may wax ak yenn Sénégal daal dina répertorié lu toll ci 223 décès bu jógee ci li nga xamante ne moo di Covid 19. ci 177 cas positifs yi 159 ñoo ci daal di nekk ay cas contacts 18 yi ay cas communautaire la. 33 euh, daal di nekk li nga xamante ne mooy nombre de patients yi nekk ci suñu service de réanimation yi waaye tamit 113 euh, personnes daal dina ñuy wér ba dellu seen i euh, kër ñuy fàttali Sénégalais yi ba tey rek ni que kii lee di le ministre de l' intérieur Aly Ngouille Ndiaye il fera face à la presse demain vendredi 7 août 2020 à 16h foofu lee ci ministère bi ngir ñu mën ñoo wax li nga xamante ne mooy mesures yi ñu jël ci wàllum Covid 19 ndax gis nañu Sénégalais yi ni ñu bàyyeekuwee donc demain incha allah mm-hmm. daal day taxaw jàkkaarloog Sénégalais ku wax leen. mesures yu ñu jël yu bees yi Mouhamed. ah en tout pour tout le monde. Mhm. c'est important mhm. parce que nag euh, gi boo amee seetlu gis nañu. Mhm. Euh, dernièrement les mesures barrières kenn respecté wu ko. moo xam nag. jóge ci kaw ba wàcc ci suuf mm-hmm. jour tabaski am na image bu nga xamante ni moom moo doon circuler mu di njiitu réewum Sénégal bi muy euh, def sacrifice wu xaram ñi mu taxawal ñëpp takk takk masque moom mooy dem plage moom mooy ne ci restaurant yi di wut lu mu lekk moom mooy ne ci mbedd di di mm-hmm. jël ñeneen ñi nga xamante ñoo nekk ci kaw bàyyi leen ñu nekk ci seen bopp yooyu moom il faut que ça soit clair il faut mettre tout le monde sur le même pied d'égalité parfois romb ci mbedd yi ñi la war a def contrôle de masque ñoom ci seen bopp ils pas de masque et là le citoyen te dit man dooma laaj ndax takk naa masque parce yow si sa bopp takkoo masque charité bien ordonnée daal commence par soi même yi ni muy mel gis nañu seen seen ay cérémonie ni muy mel alors bu ñu rabattre ci ñun ñi nga xamante xëy na amuñu fu ñu wéeru amuñu fu ñu jàppandoo jël yu métti teg ko suñu kaw jël yeneen euh, euh, euh, pousse ko ci seen côté loolu surtout surtout suñu takk der également blâmé wuñ leen mais parfois nga dox ci mbedd di gis policier bu arrêté euh, nit buy romb parce que takkul masque alors que moom ci boppam moom mi koy arrêté mmh. takkul masque. wala mu laal ko fii wala mu laal ko fii. waaw xam nga loolu tamit ah day fekk nga set. ba set dëgg yàlla ah, mi ngi noonu. Mmh. ayca donc ñu ngi xaarandi euh, ndi ndogal yooyu nga xam ni demee incha dina ko dina ko joxe askan waa ngi koy xaarandi incha allah mmh. ayca. su ko defee ñu wéyal ak xibaar yi Myriam mi bi nga xamante ne daal dinay dal sénégalais foofule ca États-Unis ci ville bi ñu naan Denver mu nekk ab famille sénégalaise bi nga xamante ne ils étaient au nombre de euh, cinq ki ci gën a fës nag di père de famille bi di wuyoo ci turu euh, Djibi Ndiol moom nag mu nekkoon ancien président du club d'anglais bu lycée Limamou Laye bu Guédiawaye moo daal de faatu ci boobule incendie moom doomam jabaram sëram ak doomu sëram loolu États-Unis naka noonu nag ñu ñu xamal ni que boobulee famille ñu ngi sokkeekoo fii lee ci euh, Géejawaay euh, ci quartier bi ñu naan waxi naan Nimzat famille bi actuellement euh, kenn mënu leen contrôler Myriam ndax nekk na loo xam ne dafa metti ab taal bu ñëw daal di ramasser tout une famille maintenant nag police dem na ci lieu bi ba kii lee di Jo Montoya nekk chef de la division de la police daal day wax ni que am na ay preuves yi nga xamante ne dafay certifié ni que li crime la donc enquête bi mu ngi suivre son que euh, loolu ñuy wax euh, dafa daal day confirmé wu euh, du ñu exclure benn yoon li nga xamante ne moo di porter plainte ndax li xew métti na et que sénégalais yëpp dinañ daal day jóg taxaw ci ndax justice pour que justice soit faite. en tout cas c'est un vrai drame comme mhm, ça dit mhm, mhm. parce que nag membre famille ñoo xamante ne plus de cinq personnes ñàkkandoo seen bakkan nekk na loo xamante ne métti na torop moomu ñu xaarandi enquête parce que am na ñuy ñuy wax que ni comme ni ko Jeanne waxee c'est un accident criminel donc ñu ngi koy ñu ngi xaarandi xool fu muy fu muy mujjee et puis lépp lu justice bi laaj ñu mhm. def ko ci également mhm. c'est très important mm. moom tëb na tëbal jabaram effectivement il a eu trois trois rescapés merci d'avoir souligné il trois rescapés ñoom au deuxième étage la ñu daal euh, jóge daal day tëb euh, loolu moo tax ñu daal di ci euh, mucc merci d'avoir souligné ça ils étaient aussi des sénégalais ils étaient aussi des sénégalais d'accord mmh. ok dana waaye yàlla ñëw rek mais en mmh. tout cas Euh, ak nu mu ci munti demee rek. Mhm. ñu topp enquête bi ba mu leer. Mhm. waaw ba mu leer. dëkk yoon ko topp parce jóg nañu leer. ñëpp jóg nañu mm, na leen yàlla yërëm xaaral ma aljana euh, ñu daal di ñëw ba ci prison bu Rebeuss tey nag site internet yëpp daal di jóg di ñu xamal ni que euh, dañ koy daal di raser et que prisonniers yi ñoom ci seen jëmmi bopp dinañ leen daal di transférer fi nga xamante ne moo di prison bu nekk fële ca Sébikotane loolu nag ki lee di maître Sidiki Kaba nekkoon à l'époque ministre de la justice moo xamante ne moo di assemblée nationale en attendant euh, boobu les euh, décisions dañ ko daal di euh, suspendre ba xool fan la ñuy daal mujjee en tout cas lan moo tax ñu décider raser li nga xamante ne moo di prison bi c'est parce que daal du respecté wul li nga xamante ne moo di les normes internationales de santé yi nga xam ne moom la prison war a matal moo tax ñu décider ko raser ah, aussi à mhm. Mhm. dañuy jaay prison bi bu bi ñu fi invité c'est 6 milliards rang muy gaaw. kàlla ci ko fi invité 10 000 problèmes il avait euh, donné une bonne idée en ce qui concerne euh, Rebeuss mu ngi doon xam ne ne buñ ko rasé woon tabax fa jàkka. Mhm. Euh, peut-être dina delloo si xelu ñu bëri ñëpp xam ne fii nii. xëy na euh, pas def katu ñaawteef mais euh, ñu ñu daan punir lañ fa doon def maintenant mhm. rase ko def ko euh, néegu yàlla dina tax ñu bari xëy na seen réponse yi gën a gaaw c'était une idée rek comme tout comme les autres idées mais néanmoins c'est pas mal mun nañ ko def centre boo xamee ni. de euh, de réinsertion ñi nga xam ni dañ bu ñu euh, génnee ci kaso ba bëgg nañu amaat beneen vie. mun mhm. nañ fa jàng ay métier yooyu yëpp mun nañ ko def. ci ci kaso boobu moo gën ay jaay de. Hmm? c'est-à-dire damaa jàpp ni. damaa jàpp ni dañ koy jaay xam nga li ma jàpp mooy. Ah. merci c'est-à-dire que euh, Dakar li des ci suuf. bëreetul. xel yëpp ci aéroport gii la nekk. fi nekk ñu def ko boo moytuwul aéroport séddoo nañ ko ba pare. Mm-hmm. c'est-à-dire que yàgg na maanaam norme yooyu ñuy wax. ça fait vingt ans ni ngi koy jooy. Mm-hmm. mais jaay bi laa gëm ni waxaale nañu ba pare rek il faut waaw te dafa placé nag. dafa placé géej gi ak yooyu. dafa placé. a bañ parce que sunu sunu sunu sunu patrimoine la. ñoo ko te njaay la moo xam ne du am ko coow. Mm-hmm. ndax prison la woon. waxee xëcc dëgg la de dam xëccoo ayca Jeanne jox ñu beneen information info bi ci topp na ab explosion naka bi daal di génne euh, décrété li nga ne moo di ab état d'urgence pour deux semaines euh, ci noonu ñuy xamal bilan bu mujj génn Myriam mu ngi toll ci 137 nit yi nga xam ne ñàkk nañ seen bakkan ci explosion yi nga xamante ne amoon na démb ca Liban waaye tamit euh, plus de 5000 actuellement la jotee compté sans compté sans compté te une dizaine de personnes yi nga xam ne mm-hmm. ñoom actuellement ñu ngi leen di seet kenn gisagu leen waaye tamit un bon nombre de soldats et de pompiers yi nga xamante ne dañoo nekkoon ci boobule incendie pour euh, jéem koo fay ñoom it kenn gisagu leen Myriam ñuy ñaanaat bu baax a baax a baax rek ndax suñu borom teg loxo fi nga xam ne euh, moo di Beyrouth ndax ñi nga xam ne dañoo réer actuellement mhm. ñu gis leen ñu ànd ak seen i bakkan waaye tamit ñi fa faatoo euh, mhm. seen yaa suñu borom daal di leen yërëm rek te xaare leen aljana métti na torop Myriam dem ba tey ñu ngi compté ay décès mhm. ils sont passés de 100 à 100 de 100 hier c'était à 100 aujourd'hui c'est na torop métti na torop trop. Mhm. Hmm? en tout cas sénégalais ñu ngi koy bind dem ci réseaux sociaux yi di wax ni que nit xaddamu ñoom bu fekkee am na fii ci suñu réew nañ ko teel a signalé. Mhm. ndax explosion boobu mu xajul fi. xaju fi de problème mooy Sénégal par par par Sénégal ñoo ngi ci bomb buy nilaw. Mhm. parce que usine bii nekk ci entrée Thiès euh, entrée entrée entrée euh, Fass Mbao la ah. ban la. wala ci Soko métal wala. Ah, Fass Mbao. Fass Mbao xaw ma usine gaz la xaw ma usine pétrole la. boo dee boo dugg si. cest que kër yi fekk si nañ ko mais am amul benn solution yàlla na jàmm di am. Mhm. foofu na fa jàmm di am mais yenn usines yu mel noonu ay jëm ci wàllum pétrole ak gaz pour man warul jege. non foofu moom yàlla na fa jàmm di am. man heure ma fa rombee damay xalaat. du du du kii de. Hmm? ah loolu dafa doy waar bi usine bu jege ay kër ak yu ni mel. usine pétrole ak i gaz. loolu moom wóorul moom bu doy waar la. en tout cas bu amee moom vraiment jot nañu jël suñu ay ñu di ñu dal. voilà dañuy ñëw ba ci Parcelles Assainies ci euh, unité 18 ab femme étrangère bu wuyoo ci turu Pay Blessing moom nag moo daal di jël ab nouveau-né doomam daal di koy sànni au deuxième étage heureusement ba xale bi euh, mu ngi descendee ak bakkanam waaye moom femme boobu euh, biñ ko interrogé ci li tax mu def boobu jëf dafa wax ni que dafa jël alcool ba noppi euh, jotee ki nga xamante ne moo di copain ñoom ñaar ñëpp nag du ñu ay sénégalais euh, elles sont de nationalité étrangère waaye kii lee di femme bi actuellement moom déféré nañ ko euh, li nga xamante ne moo di délit de tentative d'infanticide xale bi actuellement mu ngi ca hôpital Idrissa Pouye bi nekk fi nga xamante ne moo di Grand Yoff waaye tamit juge bi daal di nay teg ay daan waaye ba noppi diggal à ce que ñu yóbbu xale bi fi nga xamante ne moo di centre d'accueil le temps ñu trouver famille am peut-être ci extérieur ah doy na waar ñooñu kay mënuñoo nekk kii Sénégalais nag ndax Sénégal def naa ne xolu yërmandeem euh, kii na loolu jël ab bébé bu toll ci ñaata weer. nouveau né c'est un nouveau né c'est un bébé. nouveau né sànni ci deuxième étage. waaw loolu doy na waar di lépp. Ah. ba pare trouvé alibi alcool alcool mënu la def loolu. à tout moment mën na lu ko raw. alcool lu ko raw man je suis pas je suis pas d'accord. ça dépend man gis naa ñu koy jël bu ñu ñëwee. ñu koy ñuy bu nekk na nga xam ni ngay jëlee alcool mais problème mooy boo ko ëppalee boo ko ëppalee day grave. parce que man fan yi gis naa am ñooy wax wax yoo xam ni damay naan ñii est-ce que mandi a wax ah non sàngara xajul non sàngara xajul ci boppi gone yenn saa nga gis ku génn def euh, live wala def statut wala def nangam euh. wax wax joo xam ne dangay xam ni kii daa ñam soog a wax mais mais euh. Ndiaga bu la ne woon moom non am na leneen luñ ciy laxas sàngara lu la def loolu yow mi naan yaa defe ni fàtte woo dara <laughs> waaye ñi nga doon waxal xam ne am nga loo fa justement Mouhamed buñ la nee buñ la mooy mooy mooy umul xarit su ma juumul yàlla na yàlla dee. mais buñ la nee Mouhamed si on te dit que. Euh, sàngara ci lislaam bokk ci suñu diine ne mm-hmm. mooy umul hajab mooy ndeyu ñaawtee fii. Mm-hmm. war nga koo mën a gëm am na ci ay histoire koo xam ne dañ nekkoon defal choisiral bii wala bii wala bii mu ne xaaral ma choisir naan. nelaw yeewu bañ a def ba mu naanee dafa boole ñett yi ñu ko doon tere yëpp mu mhm. def ko c'est ce qui signifie lu lay tàggaleeg sa sago mhm. waxuma la sànni sa doom au deuxième étage mais mën na la rayloo sa mhm. rayloo sa sàngara sàngara genre bi ngay naan du la def noonu sàngara di nga am di nga am ah, courage yi mais ay degré tamit ay degré waaw est-ce que amul degré ban nga ciy jël nit ko naan daal di supaa jëlañu mën naa reyloo ça dépend nit <laughs> ko naan maa ngi ba pare nim bi yow laa koy may Myriam nee na est-ce que amul ay degré. à tout moment. man lay naan. mais xam naa ne nga nit ki am na ñoo xam ne nii tey da nga leen di gis. ñu màndi bu ñu màndee suba ba ni ñuy tëddee du ñu wax dañu naan nem. waaw ku ci nekk ak sa façon ça veut dire yow na nga mel. am na ñoo xam ne loolu lay feeñal. am na ñoo xam ne bu dee da ngaa réew. di di di ba màndee da ngay gën a réew. da ngay gën a réew bu dee da ngaa yaru da ngay gën a yaru. màndi day génn jikko. day exactement faal foofu laa bëggoon ñëw. am na ñoo xam ne reetaan leen dikkale woon. ça dépend ku ci ne ni muy ni muy ñëw imaginer boo mandee noonu ngay mel imaginer mbay bu bu a dogaloon ñu mandil waaw xam nga dina reetaan adduna dëgg la kan la mbay bu mandi woon gis ay reetaan yu augmenté ay yow it boo doon mandi yow ay may day wax rek di nga gis day wax rek day wax rek ñu man noonu day wax rek dina yëngatu am na ñoo xam ne nag aussi ay dina yëngatu ci ay débat ay théorie Molière ku nekk ni lay dikkee en tout cas en bi ñun neexuñu parce que mhm. jël ab euh, bébé bu ndaw mhm. moom di ko sànni ci ay étage mhm. vraiment euh, ñun souhaité wuñu loolu lu ci lu ci mënti am rek na yoon def liggéeyam et puis xale yi tamit xale bi tamit ñu teg ko ci ay euh, loxo yu wóor surtout surtout ay ayca ñu dem ci beneen info info bi mujj bi euh, Mouhamed ñuy fàttali euh, policier bi nga xam ne dañ ko rajee woon doon wuyoo ci turu Mouhamed Gassama moomee kay euh, complice am ñu ngi woon ci fi nga xamante ne moo di commissariat bu Dakar Plateau ndax fi nga xam ne moo di dikk dañoo amoon ay problème de chambre moo tax ñu dénkaane leen foofu ñoom nag dañoo essayé bëggoon a évadé woo Mouhamed malheureusement pour ñoom daluñu ci ndax kii léegi di ASP bi bu mu ñëwee di leen ubbil seen cellule pour jox leen li nga xam ne moo di seen añ dañ koo daal di neutraliser blessé ko ba pare bëgg daal di rëcc heureusement tegaat nañ leen loxo Mm-hmm. ah man de ñii ñàkkul ne Amérique. am nañ fit de dañ juddoo màggee fa ñii am nañ fit dëgg moom ah. policier bi ci boppam moom fit. Ah, ex policier laay wax. man dama ragal nit ñi ci yeneen dëkk yi la ñuy juddoo <laughs> màggee fa ba ñëw fii parce que yii ci film yi rek laa ko daan dégg defaat ah. maa defe ñu ngi léegi di xew nag fii ci réew mi bu njëkk pour nga gis ko mooy euh, ci film nga ko daan gis mais mm. léegi. Euh, dañ koy appliqué dañ koy appliqué te mm-hmm. te gën koo mokkal. gën koo mokkal gën koo mokkal. gën koo gën koo mokkal doy na waar de <laughs> Jeanne. Mohamed jox ñu beneen info. boobu moo nekkoon ponk bu mujj bi. ah booboo nekkoon ponk bu mujj bi. Mhm. ay ci jërëjëf. <laughs> kontaan nañu ci information.